faslun li doon dog la moom daa aju ci al ilaahu giñ maanaam giñ ci ñàkk joteeg soxnaam alquran daa fekkoo ñu daan ko def mu àtte ca lilladina yu'luuna min nisaihim tarabbusu arbaxati ashhur mu ne al ilaahu mooy jëkkër ji nga xam ne jullit la kàllaf la amul dara luy tee mën a joteeg soxnaam mu waat ci yàlla ne du joteeg soxnaam diir boo xam ne ëpp na la ko yoon may mais bu dee gor lu ëpp yeenti weer bu dee jaam lu ëpp yaari weer kon def na al ilaahu giñ li tax mu ne jëkkër mooy jamono yi jaam amee bu góor gi amee jaam bu jigéen ne du ma joteeg moom lu yàgg-yàgg duñ ko wax dara ndax jote ak moom waru ko da koy def rek ci coobareem bu fekkoon ne kooku day gone itam jëkkër ji day gone boo xam ne du joteeg soxnaam si tudd jur bu yàgg itam du tax yoon jàpp ko di ko àtte ca loola ndax ngone gaa tax bu doon ab dof itam noonu kenn du ko àtte ci loolu ndax ndof gaa tax bu doon ab yéefar yéefar moom ak faseem ak ak beneen ci ñàkk jote kenn du ko faale bu doon koo xam ne itam dafa màggat a màggat bu mënta joteeg jigéen mbaa leneen dal ko loo xam ne tax na daal moom mënta jotee bu waatee ak ñàkk a jote itam dañu xam ne day wax rek waaye moom su ko bëggoon it mënatu ko kon kenn du ko jàpp di ko àtte àtte génn giñ bu aayu ci loolu bu fekkoon itam soxnaam toll ci di nàmpal dañ jàpp ne lu tee mu ne du joteeg moom mooy bëgg rek lu baax ca gone ga nda bëgg a dëng yi jigéen ja mbaa dara taxut daa dégg ñu wax ne rek kuy nàmp joteeg yaayam gënut mu bëgg a sàmm nag gone ga ba tey duñ ko wax dara waaye nag bu fekkee ne bëgg a dëngee jigéen jaa tax moom ñu jàpp ne def na la ñuy aaye daal di koy àttee waat gam waat ci ñàkk a joteeg soxnaam la ne mën naa nekk lu mu xëppati di ki mu ne soxnaam waat naa ci yàlla li tàmbulee fii ba juróom benn weer bu ma fi jotee yow baa mu ne ko waat naa ci yàlla li fekk at mi dee bu ma fi jotee yow te gis ne da des ci at ma ëpp na yéenti weer loolu kon ak xëppati la mbaa mu wax loo xam ne xëppatiwul sax waaye jëmtalu na ba ëpp yéenti weer ni ko mu ne ko waat naa ci yàlla du ma jote yow dara dara lu may sa baay ñibbisiwut bàyyi ko ci bitim réew ba ma waxtaan ak moom ci sa mbir te xamuñu kañ la bàyyi bay ñëw jëmtalu na balaa mat ñeenti weer jamtalu na ay weer yu bëree bëri ba ci at sax mën naa itam mu yeew ay waxam ci dara ni ki mu ne ko waat naa ci yàlla ne li fekk maa ngi yow ci kër gii du ma jotee yow dara nga xam ne génn na ci suñu génnoon kër gi waaye nee ko li fekk ma ngi ci kër gi moom du ma jotee yow loolu mooy xay yada aw atlaqa nag moom mooy mu ne ko woon rek ci misaal waat naa ci yàlla du ma jotee yow rek yeewu ko ci dara day wane ne liñ mën a aje tafe noonu mën a aje itam al ilaa bii nga toll mel ne jigéen joo xam ne takkawu ko mu wax ko ne ko yow mii de gisuma la takkee waat naa caala ne dana am juróomi weer yoo xam duma jote yow dara saa yu ko takkee rek lam ajoon daal di aji ko bu ne woon sama soxna sii duma joteeg moom bu ma joteeg moom rek warul naa yàlla woor am at bañ a woor am at bu fekkee moo tee mu joteeg moom bu jigéen jëmee ci attkat ba rek mu daal daal koy dóoral yeenti weer ne ko buñ fa amee ñeenti weer te jotiwul ak moom rek bu bëggee ñu fase ko li ëpp ci jigéen ñi war nañu wax seen jëkkër ne ko joteel ak man kon nag bu góor gi ne soxnaam waat naa ci yàlla li fekk jëloo sa bopp ñëw ne ma joteel ak man bu ma jotee yow jigéen ji itam daal di jàpp loola nu mu wute dem ca moom boo jigéen jëlee ci àttekat ba rek daal di woo jëkkëram ne ko joteel ak moom su bañee daal koy dóoral àpp boobu bu waatee ci yàlla ne bu aseeg soxnaam bu jógloo du ma taseeg moom ca marché ba mbaa ci dëkk sàngam moom dara nekku ci waaye bu jëloo ne du taseeg moom mukk mukk loolu moom du ma joteeg moom benn lañ ndax bu tasewut ak moom du mën a joteeg moom bu ne soxnaam doo ma tax sangu janaaba mukk ba tey loolu mooy rek du joteeg moom ndax bu joteeg moom sangu janaaba war ko kon bu ne ko doo ma tax sangu janaaba waat ko moom waat ñàkk joteeg moom la bu ne woon na du ma sangu janaaba waat ko te jublu ci jëmmi sangu janaaba ci boppam la ne du ko def jubluwuta bañ joteeg soxnaam waaye nag xam na ne moom bu joteeg soxnaam du mën a ñàkk a sangu janaaba tax nag daal di bàyyi joteeg soxnaam kon bu ko soxna si indee ci kanam yoon ne moom kat lee jotit te man dara ndax nee na daa waatane du sangu janaaba te bu joteeg man sangu janaaba da koy war bu nanguwuta deltu gannaaw rek ñu dóoral ko ajalul ilaa ñeenteer te ñeenteer yi ma ngay tàmbalee ci bis boobu nga xam ne ca la ko soxna si indee ci kanam yoon di kenn di ko tàmbalee ci bis ba mu waatee ne du sangu janaaba bi mu nee nag du ma sangu janaaba bu fekkee ne ñàkk jote soxnaam la ci jublu atkat day jàpp ne def na ilaa u giñ bi ñuy wax tayit bu dee seet dele ba ni ngi koy tàmbalee ci bis ba mu giñee bu ko tàmbalee ci bis bi ñu ko indee ba muy seet mbiram su ne woon soxnaam su ma jotee yow rek fase nga bañ mu fase nag tax mu ne du jotee ak moom bu soxna si demee ci àtte ba ne ko moom li daa waatoon ne du jotee ak man fase naa bañ ma fase nag tax mu ne du jotee ak man àtte bi daal koy woo ne ko jotee ak moom bu la nguur rek mu dóoral ko àpp woowu bu waatee ci yàlla ne sama soxna si saa yu ma jotee ak moom rek fase na bu fekkee néewul fase na fase mu dog ndaa fase na ñetti yoon dañ koy wax ne ko jotee ak moom rek bu sawukaay ba duggee fase na waaye da ngay yéene nag ci ba rot ci sawukaay ba nga yéene ca fay li ndegam moom boo jotee ak moom rek fase na bopp sawukaay ba bu dugg rek fase am na waaye kon nag woo ci teg ci jote mbaa ci ñor di sawukaay ba mu génn da nga ci yéen ak fay li donte day koo xam ne sax dañ ko may ak léegi bi yoon lañ jëkk jotee ak moom it bu sawukaay ba duggee dañuy jàpp ne lépp naa ak moom ba ñor di ga mu ñor di sawukaay ba mën na caa yéene ak fay li nga dañu dañuy wax ne ku ñu may soxna te jotewut ak moom dara bu ko fasee du ko mën a fay li ndax it waru ca mu ne waaye du tee rek ma jotee ak moom bu sawukaay ba duggee ñu jàpp ne jote naa moom wéet naa moom bu ñoddi nag sawukaay ba mu yéene ci ak fayli ndax ndegam dugg sawukaay ba wecc na ak jote ak wéet kon mën na koo fayli ñoddi ga mu ñoddi sawukaay ba mu génn na ci yéene ak fayli bu doon nag koo xam ne moom da ko waxoon ne ko saa yu ma jote yow rek fase nga ñett xam nga ñett nanguwul fayli mbaa mu nekkoon su ma jote yow rek fase nga fase mu dog dog itam ñett lay doon mbaa mu jëfandikoo kullama kullama jooju nga xam ne adaatu takraar la jumtukaayu baamu la xam na ne ko woon daal waat naa ci yàlla ni bépp yoon bu ma jotee yow rek fase nga kon duñu ko may mukk mukk mukk mu jotee moom ndax nag daañu ko dóoral yenti weer yi muy àpp boobu wala déet dóoral ko yenti weer la mu jariñ mooy xëy na soxna si nangoo toog ak moom noonu rek bañ a jotee moom dara dara am ñu ne nañ ko dóoral yenti weer ndax mën naa am soxna si nangoo toog ak moom noonu rek am ñu am nañu ne deesu ko dóoral ajalul ilaa dañu jekki-jekki rek teewal passé ma ndax ndegam lu yàgg-yàgg moom du mën a joteeg moom mukk mukk mukk kon nañ daal teewal passé ma daal di teewal passé ma nag mel na ne moo gën a wér moom la Malik wax moom la Ibnul Qasim wax bu soxna si ñëw rek ci kanam yoon ñu daal di teewal passé ma say boo jàpp jooju wax waaye nag bu soxna sa nangu woon toog rek nekk ak moom noonu ñu bañ jote dara dara itam baax na bu ne nangam faaw ma def ko bu ma ko deful rek yow sama soxna si fase nga buñ ko toppee mu soppiku al ila diñ bu ay bii ndax li mu ne faaw ma def ko yoon da koy wax ne ko doo sañ a jotee dara ak sa soxna ba ba ngay def lii nga wax ci biir ne faaw ma dugg kër diw bu ma ci duggut sama soxna si fase na ñu ne ko di la duggoo ci kër googee buñ la bàyyi nga jotee sa soxna bu yàggee nag soxna si ñëw ci àttekat bi ne ko moom kat ñu waatoon def ko ba tey te léegi nga ko du jotee ak man kon yoon da koy daal di wax ne àppale la ñeenti weer boo fi amee ñeenti weer te dugg ci kër googu ngay wax rek ñu fase soxna si damay faral tudd rek ñeenti weer bañ a tudd yaari weer bu doon jaam wax ndegam ñëpp léegi ay gor lañu mu tarañeel gor ak jaam mu ne kon faaw ma jotee yow su ma joti wute yow rek fase nga kon defut lu aay ndax dañoo wax ne ilaa bi nga toll mooy mu waat ne du joteeg soxnaam ci tudd diir boobu kon nag bu ne ko faaw rek ma jotee yow ma jotee yow fase nga kon deful lu aay bu waatoon ne soxnaam si dana ko jàmb day jàpp ne jàmb ko ci bañ koo tudd bañ koo taas rek teewu te jotee ak moom taxul mu ne du ma jotee ak moom. ba tey bu ne woon sama soxna si waat naa du ma waxante ak moom buñ ko jàppee ak waat ne du jotee ak moom ndax mën naa bañ a wax ak moom tey jotee ak moom bu waatoon ne it su may jotee ak moom du ma bàyyi ndoxu man yi mi jàll ca biir du tax ñu jàppee ko ila maanaam diñ ci bàyyi jotee ak soxnaam. ndax waxul bàyyi jotee ak moom li wax kay mooy du bàyyi ndox mu jàll ci biir bu waatoon na du ma fanaan ak moom ñàkk fanaan ak moom teewuta jotee ak moom ndax mën naa jotee ak moom ci bëccëg li tàmbalee ci la ahjuran naha mu waat ne dana ko jàmb mbaa waat ne du waxante ak moom mbaa waat ne bu jotee ak moom du bàyyi ndox mu jàll ci biir mbaa waat du fanaan ak moom la ne bu ci soxna sa amee lor ba jàmbat ko àttekat bi la àttekat bi woo jëkkëram jooju waxtaan ci ak moom bu dee ko am yaakaar koo xam ne bu ko yeddee rek mu bàyyi li mu doon def mu yedd ko te may ko nag ab ab ne ko may naa li fekk sàngam ba xam da nga soppiku bàyyi di soxna si jàmbatam déet waaye moom du ko dóoral ajal ilaa ñeenti weer mooy seet rek lam koy may cib dele ba xam dana soppiku am déet ci ni muy lore soxnaam bu jàppee nag ni moom mii day ku dëng dëng koo xam ne lii rek lañ rawee may ko dele du fi am benn njëriñ mu daal di fase soxna sa ndegam soxna sa mënta muñ lor yooyee bu fekkoon ne moom waatul ne du ma joteeg sama soxna waaye daa jekki-jekki rek nangootu te joteeg moom bàyyee joteeg moom moo xam mi ngi fi moo xam nekku fi ni ki mu jekki-jekki dem fu sori mbaa nekk feneen fu bokkut ak fu soxnaam nekk te jublu te lu may bañ a joteeg moom ndegam waatul ne du ma joteeg moom kon kenn du ko dóoral yeenti weeri ilaa na attekat ba seet rek bu dee ku mu am yaakaar ne bu waxee moom rek mu dellu joteeg soxnaam mbir mi jeex baax na bu ci amul yaakaar nag mu daal di fase soxna sa ndegam soxna sa mënta toog rek noonee ci bañ a joteeg moom bi nga xamee ne sax jëkkëram jooju daa jékki-jékki dem bàyyi ko ndax rek bañ a joteeg moom na ko atekat bi mbaa kilifa ga bind ne ko ñëwal boo ñëwul rek ma fase sa soxna bu nangoo ñëw baax na bu nanguwuta ñëw nag say boo ñu fase soxna sa li may soxna sa ci boppam moo ne nangu naa toog rek kon ñu bàyyi ko mu toog noona ku am soxna bu sëggee rek ci jaamu yàlla fu mu toll nga xam ne day woor bëccëg bi di julli guddi gi du may soxnaam yenn jamono yi muy joteeg moom dañ koy wax li nga nekk moom lu baax la kenn du la forcé ci nga bàyyi ko waaye ndegam soxna si aajo woon a kuy joteeg moom kon deel joteeg moom su bañee nag ñu ne ko kon fase ko mbaa yoon fase ko bu may nag soxna si it nangoo toog ak moom noonee bu soxna si nangoo toog ak moom noonee rek ba tey baax na waaye saxoo jaamu yàlla muy baax baax bu naree lool soxna sa te soxna sa mënta muñ ñu ne ko fase ko mbaa yoon fase ko bu góor gi waatee niire di joteeg soxnaam te soxna sa mënta muñ daal di ñëw ci yoon kon yoon day woo jëkkër ji ne ko daañu la may li fekk yenti weer nga dellu di joteeg moom te bàyyi lii nga waat ne doo joteeg moom bu dee góor lay doon ñeenti weer bu dee jaam ci yee jamono muy ñaari weer bu yenti weer yi matee nag ca gor sa mbaa yaari weer ca jaam ba te nu mu wuti deltu gannaaw te soxna sa nu mu wute muñ ñu daal di fase soxna sa ci alquran fa in faa'u fa inna allaha gafurun rahim wa in xasamu talaaq fa inna allaha samiun alim bi dee seetal nag jëkkër ji yeenti weer yi mbaa yaari weer yi ana fan lañ koy tàmbalee day wuute léeg-léeg ñu koy tàmbalee ci bis ba mu waatee ne du joteeg moom léeg-léeg itam ñu koy tàmbalee ci bis ko jigéen ñëwee ci àttekat ba ba àttekat ba di àtteek seet mbir moomu takk-takk bi nag mooy bu fekkee ne dafa xëppati ci digg ba wax ne du joteeg soxnaam mbaa daal baat ba mu wax moom ëmb na ak xëppati ci ñàkk joteeg moom mën naa mu boole ci tudd diir boo xam ne weesu na yenti weer bu dee góor mbaa ñaar bu dee jaam dik mu ne soxnaam waat naa ci yàlla ne duma jote yow li fa juróom benn weer xam nga foofu ba xëppati wax ak ñàkk joteeg moom xëppati it lépp yenti weer ya bu ne ko woon it waat naa ci yàlla duma taseeg yow diirub juróom benn weer kon baat bi mu wax xëppatiwul ak ñàkk jote waaye ëmb na ak xëppati ndax bu dajewut ak moom rek du mën a joteeg moom bu xësee xëppati daal waat ak ñàkk jotee mag soxna sa mu boole ca leeral jur bu yàgg bu ëpp yenti weer mbaa xëppatiwul sax wax lu ëpp yenti weer waaye lam wax jamtalu na ëpp yenti weer jamtalu na ba tey yées yenti weer ñàkk koo mat mel ni mu ne ko waat naa ci yàlla duma jote yow li feet sa bàyyi ñibbisi wut bàyyi ko ca réew ma mu dem ci xamuñu baayam kañ lay ñibbisi jamtalu na baayam ñibbisi te du mat ñeenti weer jamtalu na bala bàyyi ma ñibbisi weesu ñeenti weer ba ci at mbaalu ko ëpp wala sax mu waat ne faaw ma def nangam mbaa faaw nangam am di ma wax nag li feek muy am du ma joteeg yow ndegam daa waat ci yàlla ne du joteeg moom li feek muy def nangam mbaa li feek nangam di am loolu muy ak teeñu teeñu mooy faaw ma def mbaa faaw nangam am bu xappatee nag ne nangam naa ko def mbaa nangam dana am mbaa du ma joteeg sama soxna kon yoon da koy wax ne ko loolu nga ne faaw nga def ko mbaa doo joteeg moom duñu la bàyyi ngay joteeg moom te defoo ko mbaa li nga ne bu amul doo joteeg moom dañ lay aaye soxna si ba loolee am loolu nag xam nga jamtalu na la mu wax mu def ko mbaa loolee am balaa mat ñeenti weer maanaam itam mu yàgg lool du ko man mbaa loolee du am li mel nii moom ba atikat bi seet yeenti weer ya da koy tàmbalee ci bis ba mu waatee du ko tàmbalee ci bis bi andi mbir mi ci kanamam koy tàmbalee ci min yow min yamini laa min yow min rafi wal xukmi benn bi muy bëgg wax rek say boo takk ko mooy bi nga xam ne bu dee seet ñeenti weer yi bu dee gor mbaa bu dee daam ñaari weer dañ koy tàmbalee ci bis bi soxna si ñëwee ci attikat bi bu muy seet mbir mi ba cay dogal bu ne nangam moom faaw ma def ko loolu mooy ak teeñu ndax xam nga ci tebbi ko lay nekk li soo muy def loolee ba ne nag faaw nga def nangam su ma ko defut yow sama soxna si fase nga yoon da koy wax ne ko faaw nga def loolu nga waat door a mën a joteeg soxna si loolu nag xam nga mën naa yàgg bu yàggee nag soxna si mënta muñ ñàkk gaa joteeg moom faaw mu ñëw ci àttekat bi mbaa kilifa diine ga wax ko ni mbir mi demee su boobaa nag dañuy wax jëkkër ji ne ko àppal nañu la ajalul ilaa maanaam yeenti weer bu dee góor mbaa yaar bu dee jaam suñ amee yeenti weer li tàmbalee fii tey mbaa yaari weer ci kanam te defoo li nga wax te soxna si mënta muñ rek ñu fase ko nga xam ne kon booy takkat ngay wax ne bu fekkee ne jëkkër ji xappatiwul waat ak ñàkk joteem ak soxnaam waxut it baat bu ëmb yu mel ne xappati la mu waat kay day loo xam ne boo ko toppee rek fa ñu mujjeeg moom mooy àppal ko ajalul ilaa yent weer mbaa yaar te ci dëgg-dëgg moom waatutoon ak ñàkk jote foofu rek la ñuy tàmbalee yeenti weer ya mbaa yaari weer ya ca bis ba ko attikat ba seetee ba cay dogal lam cay dogal waaye saa yoo xam ne moom daa xëppati waat ne du joteeg soxnaam mbaa la mu wax xaw naa wecc ak xëppati kon mu teg ca tudd ab weesu yeenti weer mbaa yaar ak teg ca ab boo xam ne mën a caag mën a caa ba ñàgg bu ñuy seet délai ba dañ koy tàmbalee ci bis ba mu waatee duñ ko seet ci bis ba ko àttekat bay seet nga seetlu ne aw kaanat xalaa xin sinjee mooy ba mu ne waat naa ci yàlla du ma joteeg sama soxna li feeg defuma nangam nangam faaw danaa ko def bu ma ko deful rek waat naa du ma joteeg moom xam nga kon xappati na ñàkk ga jotee da caa boole nag gindi ñu tebbiku mooy faaw ma def li ko wutalee fii nga toll nag illa an tastal simahoo mooy moom xappatiwul ak ñàkk jotee nag soxna sax la mu waatee lañ topp ba mujj rek yoon yóbbu ko ci àppal ko ajalul ilaa waaye moom waatul xëppati ci ñàkk joteeg moom waxul it baat buy taxaw taxawaayu xëppati ñàkk joteeg moom nga seetlu foofu baax nag ne tàmbalee yeenti weer mbaa yaar ya ca bis ba jëkkër ja waatee ak tàmbalee ko ci bis bi àttekat bi di seet bay àtte dañoo wute lool te wuute ay mbir lool mata xàmmee ndax bu ñu nee dañuy tàmbalee yeenti weer bu dee góor mbaa yaar bu dee jaam ca bis ba jëkkër ja waatee moom buñ seetee bis ba mu waatee ak biñ ñëwee ci àttekat bi mu mat yeenti weer mbaa yaar àttekat bi du yeesal délai boobu day wax rek jëkkër ji ne ko bis ba nga waateeg léegi bu dee yow góor si mat na ñeenti weer bu dee yow jaam mat na ñaar leen rek mën a am nga delluwaat joteeg moom bàyyi li nga waatoon mbaa ñu fase soxna si waaye kenn du ko appalaat beneen délai bu yees te nag bu fekkee ne bis bi àttekat bi àttee la ñu tàmbali délai ba moom bis booba rek te la ñuy tàmbalee yeenti weer ya mbaa yaar weer ya bu dee jaam la jiitu woon lépp lu mu yàgg yàgg yàgg kenn du ko faale mel ne ba mu waateeg léegi mat na juróom benn weer kon bu bokkee ci tom boobu nga waxoon ne dañu war a tàmbali dale ba ci bi ko àttekat bi seet mooy bis bi soxna si ñëwee ci la ñuy tàmbali dale ba kenn du faale juróom benn weer yooyee bu ko àttekat bi ne dóoru naal ajalul ilaa bu dee yeenti weer yaa da koy tàmbalee ci bis boobee muy waxee moom àttekat bi bu dee yaari weer yaa noonu jihaar léegi buntam ñëw mooy góor gi wax soxnaam ne ko yaa ngi mel ni ci man sama gannaaw wi yaay loolu nag ku góor gi waxee soxnaam dañ koy wax ne ko ngay def alamaan bi la yoon wax door a mën a joteeg moom bu góor gi nangu wut a def alamaan boobu nag soxna si dem ci àttikat ba ne ko moom day nangu wut a def alamaan bi su nangu wut a def alamaan bi ba mën a joteeg soxnaam soosu rek àttikat bi dóoral ko appub ilaa maanaam appal ko yeenti weer ne ko boo fi delluwul gannaaw rek ñu fase soxna si bu ko dee appal yeenti weer yooyu nag da koy tàmbalee ci bis ba mu defee jihaar du ko tàmbalee ci bis bi ko indee ci kanam yoon ba yoon di ci wax lam ciy wax wala jublu ci kal awwali am na yeneen di wax sax waaye dafa sukkandikoo jooju jaam bu defee jihaar ñu ne ko bala ngaa joteeg sa soxna si def alamaan bi moom alamaan koor rek lay man ndagam mën naa woor nag te nangu wut a woor rek bu ko soxna si andee ci kanam yoon te nangu wut deltu gannaaw dañ koy àppal yaari weer ne ko li fekk yaari weer defal alamaan bi mbaa ñu fase soxna si su fekkoo ne nag daa mënta woor mbaa mën naa woor waaye ab sangam bi ki ko moom moo ko aaye koor ga te it sañ na ko ko aaye ndax bu wooree lam ko war a liggéeyal mbaa lam ko war a jox ci bis bu nekk bu ko mën a matale ndegam moom mënta woor daa sangu baa ko ko aaye te sañ na ko kon du ko dóoral benn àpp liñ defoon ca gor sa ndax loolu ngant la mu ne nag fekkee ne góor gi daa waxoon soxnaam ne ko su ma jotee yow rek sama jaam bii muy ku ràññeeku nit ki Modou Ndiaye gore na bañ nag Modou Ndiaye gore tax nangu wuta joteeg moom soxna si dem yoon yoon daldi woo jëkkër ji ne ko boo nangu wut deltu gannaaw ñu àppal la yeenti weer muy ajalul ilaa yeenti weer yu matee rek nga sëgg ci li nga nekk ñu fase soxna si mu ne kooku nag su bëggee ngir loolu fecciku maanaam bu bëggee ilaawu boobee dañ day goreel rek Modou Ndiaye moomee jaam boobu nga xam ne bu ñu ràññal la bu nee goreel naa ko rek mbir la moom fecc ko na la ca topp nag ci ñàkk a dellu joteeg soxna si moom lor lay doon joo xam ne bu neexee soxna si ñu fase ko tegg lor ja bu ko neexee itam mu toog rek nag ak moom jaam boobu nga xam ne nag mooy Modou Ndiaye te moo taxaw ñu dóor waa ji àpp ilaa danaa ba mu goreelee suul bëti ko moom ko moom goo xam ne moo ko coobaree mën naa ñàkk kon ilaawu ba delsiwaat na bu fekkoon ne nag moom nga mu ko moomaat te di ak donn nga xam ne yoona ko ci forfait dara du ko ci war maanaam ilaawu ba delsiwut ba tey bu jëkkër ji bëggee fecc ngiñ la mooy fecc ilaawu ba mën naa seet lu waatan ba ndox digganteem ak joteeg soxnaam mu daal di gaaw teggi waat ga li bu fekkee dana woon soxnaam bu ma jotee yow bu ma jotee yow rek war a saraxe fas yii mbaa nag yii bañ a saraxe nag nag woowee mbaa fas woowee tax rek mu wéy bañ a joteeg moom soxna si dem yoon ñu woo ko ne ko dañu lay dóoral àpp ku bañ a joteeg soxnaam bi ko tegee àpp boobu nag la ne su bëggee loolu dañ day saraxe fas woowee mbaa nag woowee rek daga moom bañ a saraxe fas woo mbaa nawa moo taxal ñu teg ko lii bu wëlbati ko saraxe fasoo mbaa nawa rek dañ ko tegoon teggiku na su ñëwee nag may joteeg soxnaam nag lor la joo xam ne yoon mën na caa sukkandiku ba tey ba fase soxna sa waaye jëmmi bu fekkoon na it daa waatoon rek ci yàlla ne du joteeg soxna si tudd nag loo ko ñeenti weer ñu ne ko kon def nga lañu aaye woon su bëggee mu dañ day jekki-jekki rek joxe kafaara ndax rek ngiñ ci yàlla donc la moom bu tegg ko it def alamaan bi rek moo cay war kon nag bu jekkee jekki def alamaanu ngiñ jàpp ne ngiñ lu aay la mu defoon fecciku na la cay topp nag ci ñàkk a jotee moom moom bu ko defee ñu xam ne kon lor la ñu mu teg soxna sa waaye jëmmi ngiñ li moom su gaawee def rek alamaan ba cay war ngiñ la fecciku na su fekkee nag liy fecc ngiñ li jëkkër ji nanguwu ko mu ne kon bu fekkee soxna sa gor la donte day gone bu àpp bu matee rek bu dee gor waxoon nga ne ñeenti weer bu dee jaam ñaari weer ba àpp matee rek soxna si ne àttekat bi sama jëkkër ji àpp bi mat na seetal li ci war mu dellu nangoo joteeg man mbaa ñu may ma sama baat bu soxna sa doonee jébbéer nag ci yooyu jamono ab sangam mooy ka ko moom mooy ñëw ci yoon ne àttekat bi ci ma mayoon sama jébbéer bi mu def ko soxna àpp bi mat na na dellu nangoo joteeg moom nanguwu ko nga def li ci yoon wax li tax ñu ne sang bee ci wax mooy ku am jaam bu jigéen mayee ko bu sëy itam bu ci kooku amee doom doom joojee day doon sab jaam ni yaayam kon nag ku amee jaam bu jigéen may ko jëkkër jëkkër ja bañ bañ joteeg moom day mel ne mu ngi lay xañ doom yi nga xam ne bu ci juddu woon yaa koy moom moo tax nag sang bi am sañ-sañu dem ci yoon taxaw taxawaay bii bu ñu nee moom mi waatoon ci may joteeg soxnaam waat gu aay googee li ko yoon mayoon jeex na ñu ne ko da ngay dellu rek mbaa ñu fasee soxna si mu ne dellu gi ñuy waxkat mooy mu dellu joteeg moom joteeg ak moom nag bu bopp sawkaay bu duggee rek ñu jàpp ne lañ ko laajoon def na ko ci kaw nag mu nekk jeeg maanaam nga xam ne ndaw ga nekku ca woon waaye bu dee ak ndawam dañu toon ca sawukaay ba ñu tax ñu jàpp ne jëkkër ji dal na gannaaw joteeg moom lañ ko bëggee woon mooy mu joteeg moom ba lañu wax ndaw ga dem ca sawukaay ba waaye bopp sawukaay ba dugg rek du ko tax a doon ak dellu gu yoon nangu ne ak dellu la te it nag fekk booba amul lu tee ñu mën a jotee jigéen ja ci yoon di ki tolluwu ci gis baax mbaa dara waaye moom mi waatoon waat bu aay wi bu delloo bu delloo joteeg soxnaam ci waxtum tolloo ci gis baax def na lu araam te bu fekkee daa waatoon lu joteeg moom ngir la teddu ko na waaye waaye nag taxagul mu def la ko yoon digaloon muy jëmmi dellu ga nga xam ne moom la yoon waral ci moom ba léegi defagu ko bala bala ñoo jàpp ne def na li ko yoon wax rek mu joteeg moom ni ñu waxee te fekk jigéen ji amul gàllankoor ni ki baax boobu donte nag moom góor gi ba muy jotee soxna sa ci noonu daa fekk àndut ak sagoom waaye jigéen ji moom boobu mi ngi ànd ak sagoom rek kon dal nay baax waaye nag bu fekkoon ne jigéen ji itam boobu àndutoon ak sagoom day jàpp ne kon ñu ko santoon moom jëkkër ji defagu ko faaw rek fekk jigéen ji moom ànd ak sagoom ba yëg jote googee góor gi joteeg moom moom mi waatoon ne di joteeg soxnaam bu délai bi matee àttekat bi woo ko taxawal ko ne ko dellu joteeg moom ni ko yoon waxee mu ne bañ naa ne man laa waxoon rek laa wax loolu kon dañ ko wax ne ko kon faseel rek mbaa yoon fase suñu borom dane fa in faa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in asamu talaaq fa inna allaha samiun alim kon dañ koy wax ne ko benn nga fase rek kon ndegam nanguwu laa deltu gannaaw mbaa yoon moom fase bu dee barab boo xam ne yoon doxu fa mbooloom jullit ña ñooy daje def li yàlla wax suñ ko nee délai bi jeex na dellu ci joteeg sa soxna mu ne danaa ko def de waaye danaa rek la wax muy diggee kon àttekat bi bàyyi ab diir woowaat ko ne ko ndax def nga li nga waxoon bu dee defaguma ko ne ko baax na maa ngi lay mayaat ba ci kanam su amaatee ab diir mu woowaat ko ne ko noo def ndax dellu nga def li nga war a def bu dee déedéet mu del ko mayaatati beneen diir bu ñetteelu yoon te lépp kat ci benn bis lay doon benn bis bi rek ci lañu koy may ñetti muñal yoon ñetteelu moom bu nee ah danaa def rek de di déggee ñu koy wax ne ko fii la mbir mi mën a yem kon léegi faseel soxna si su nanguwutoo fase àttekat ba daal di fase mbaa boolum jullit ña daal di fase ci kaw nag soxna si ne mënatumaa muñ nañ fase waaye soxna si moom jote gi àqam la bu nangoo toog rek ak moom noona duñ ko fase dañ koy bàyyi wu toog ak moom noona bu mu diggee ne danaa dellu def li yoon wax ñëwoo ko ne ko ndax def nga li nga waxoon mu ne waaw def naa ko kay dellu naa ba jotee ak moom bu soxna si ne déedéet da ko wax di waaye def ko dañ ko wax ne ko waatal ne def nga ko su waatee ne def naa ko rek ñu ne ko wax nga dëgg jàpp ne dellu na joteeg moom bu ragalee waat nag kon soxna si ci boppam mooy waat ne li ma waxoon rek li mu ne def na ko defu ko te bu soxna si waatee ñu ne ko kon nag yaa am dëgg man ngaa dogu ci lu sama jëkkër ji dellu ci joteeg man mbaa ñu fase ma bu ragalee waat mooy itam nag na jëkkër ji ragale woon waat ñu dellu kon dox dëgg nga jëkkër ja ndax soxna si jëkkër ji ne dellu naa joteeg moom su fekkoon ne ci dëgg-dëgg loolu agut moom soxna si wërta ragala waat loolu kon nag danga ragal naa waat dëgg la jëkkër it ragaloon naa waat ci ne dellu naa waaye daal dañ jàpp ne kon soxnaam la ba tey rek bàyyi leen ca noona soxna si nag moom bala ñu ko waatloo day fekk muy magum jëm mu ànd ak xel mu mat mën a wéy boppam waaye bu fekkee da di gone mbaa muy ab dof waat ga kenn du ko ko defloo dañuy jékki-jékki daal di koy fase rek mu dem bu ñu nee ki waatoon ne du joteeg soxnaam waat bu aay bu ko yoon ne dellu gannaaw dellu gannaaw ga mooy dellu joteeg moom day am ñoo xam ne yooyu jamono duñ mën a dellu joteeg soxna sax mel ne bu fekkee mu tawat moom jëkkër joojee ba mu fekk ñu tëj ko kaso ba fekk mu génn tukki mu ne kon nag dañuy seet su may def loo xam ne dana fecc ngiñ la la nga waxoon ne mooy fecc ngiñ la su ko may def na def loola bu ko defee ngiñ li fecc ko na ñu bàyyi nag bu ngant li dañee mu dem joteeg moom nit ki moom mi tawat bu fekkee dafa waatoon rek ci yàlla aju ci woon dara kon day def kafaara ngiñ kafaara ngiñ te daal di fecc ngiñ la jote gi nag mu bàyyi ba mën a joteeg moom rek mooy wér ci tawat ja te ñu tëj kaso itam noonu bu fekkoon ne it da caa ajoon goreel jàmbu ràññiku wala fase goo xam ne amuk fay li kon tawat ja mbaa tëj ga kaso du tee moom mën a def goreel googee mbaa pase mooy ba tey bu defee loola nag ñu jàpp ne jëmm ngiñ li fecc ko naa dellu ko joteeg moom nag bu ngan si dañee rek mu dem def ko bu dee nag loo xam ne mënta def luy fecci ngir loolee ndax bu ko defee itam dana andi ay jafe-jafe yu wér a wér mel ne mu ne woon soxnaam si waat naa ci yàlla du ma jotee yow bu ma jotee yow rek fase nga benn fase mbaa ñaar bañ mu fase tax mu may joteeg moom soxna si ñëw ci yoon yoon ne ko kon nag dañu lay dóor àpp ku bañ a joteeg soxnaam ak koy wax ñeenti weer su bëggee ngir la fecciku ba tax mu ne kon naa gaaw rek fase ko bala maa joteeg moom bu nee fase naa ko am pasi dal nay dal waaye nag bu jàllee joteeg moom itam beneen pasi daal di dalaat ndax negam pasi bu mën a fayli la ndax waahidatan aw isnatayni la waxoon jigéen ji nekk ci pasem pay li moom dañ ko fasewaatee mu daal di dalaat kon nag bu bëggee ngiñ la fecciku tax laata mu joteeg moom mu ne fase naa ko it bu jàllee joteeg moom rek beneen pase daal di dalaat ndax moo ne ko woon suma joteeg yow fase nga ba mu koy fase booba joti gudoon ak moom mi ngi door a joteeg moom bi mu joteeg moom nag kon faaw meneen passé daal dalaat lu mel nii la ne dañ ko wax ne ko faaw nga daal di gaawal passé menn passé bala ngaa joteeg moom da ngay digge rek nga wax sa làmmiñ te dogu ci sa xol ne dogu naa ci ne bu gàllankoor bi dañee rek ma joteeg moom wax nga ci làmmiñ ak fas nga ci xol ba dogu ci rek loolu mooy dellu ga li tax nag mu ne fiiha aw fii xëyriha mooy bu ne ko woon in waqi tukki fa fulaanatu taariq bu nekkoon waat naa ci yàlla boo jotee yow su ma jotee yow rek su wujjee fase na bañ na wujje boobu fase tax lu ngi wuta joteeg moom yóbbu ko ci yoon ñu teg ko àpp boobu su bëggee mbii loolu fecciku bu ko mën a def ci kaw rek gaawal fase wujje woowee ndax ne ko da ne ko woon su ma jotee yow rek sa wujjee fase na bu gaawee fase wujje woowee itam kon fase na ko te fekkul ngiñam teggiku kon ndegam wujje woowee moom fase pay li dong la ko fase bu delloo joteeg moom mii rek wujje woowee daal di fasewaat beneen fase ndax da ne ko woon su ma jotee yow sa wujjee fase na te mi ngi door a jotee moom nag parce que pase woon wujjëm moom moo ko defoon rek ci kaw bëgg gaaw a fecc ngiñ lii waaye dama ko ne woon su ma jotee yow moom fase na bu jotee moom nag la ngi jëm di door a teggiku beneen pas yi daal koy dalaat ca wujjam woowee ba tey bu ne woon soxnaam waat naa ci yàlla du ma jotee yow su ma jotee yow rek war na maa goreel ab jaam te ràññeelul benn jaam mbaa war na maa saraxe aw fas mbaa aw nag mbaa gëléem te ràññeelul wenn fas mbaa genn gëléem mbaa lu ko nuru su ne woon na daal di gaaw ca ci lii ci daal di goreel rek ab jaam mbaa daal di saraxe rek aw fas mbaa aw nag mbaa gëléem koy coono lay indi ndax ne ko moo nekkoon su ma jotee yow rek warlu naa goreel ab jaam te ràññeelu ko mbaa sax aw fas mbaaw nag te ràññeelu ko bu jotee ak moom rek lii laa ngi door a teggi ko mu daal di war a goreel ab jaam mbaa saraxe aw nag mbaaw fas mbaa gëléem ba tey bu nekkoon du ma jotee yow moo jotee yow rek war na maa woor weer te ràññeelul wenn weer mbaa bokk weer ba mu wax ma nga ci kanam ak seegut kon su bëggee ngir li fecc ko tax mu daal di woor weer gannaaw weer woo bu jotee ak moom rek war a wooraat weneen weer ndax moom ràññeelu toon wenn weer da nekkoon rek su ma jotee yow war a woor weer bañ a war weer na moo taxoon lu nga wut a joteeg moom dañ ko yóbboo ci yoon yoon daal koy dóoral àpp boobu su bëggee nag yoonu mu giñ gaaw a deñ ba tax mu woor weer itam te fekkul mu joteeg moom bu demee ba joteeg moom rek ñu ne ko ñu ne ko sa ngi ni ngi door a teggiku war ngaa wooraat yeneen weer bu fekkoon ne it ràññal na weer waaye daa nekk ci kanam ni ki weeru baraxlu yoonu jëm la ne ko su ma jotee yow rek buñ ci àggee war naa koo woor kon su bëggee gaaw a fecc ngiñ li ba tax mu ba tax mu daal di woor weer léegi itam bu jotee moom rek baraxlu nga koy xaar ba àggee ci baraxlu war koo woor ndax moo ne kon su ma jotee yow war a woor baraxlu te jotee naa moom lu mel nii nag nga xam ne gaawee ko du ca am njëriñ di indi coono rek ndax defaat dajee am mbaa yu ko nuru yoon def nañ sa jàppandal fal waadu jooju mu wax rek bu diggee ak nangoo delloom rek al waadu bi fay ati bu ne daal gàllankoor bi am na mënuma songu songu sottal li ma yoon sant waaye maa ngi wax ci làmmiñ te doogu naa ci xol bi ne su ngant lii dañ rek ba àgg ci mën a joteeg moom te du ma ci am benn jafe-jafe ma ci yoon di teg ma daal dellu joteeg moom ñu ne ko kon def nga la yoon bëggoon lépp mat na lépp sotti na dañ ne woon bu dele ba matee dañuy wax jëkkër ji ne ko dellul joteeg moom mbaa su bëggee ñu fase ko ñu waxoon ne jigéen ji joteegeeg moom àqam la joo xam ne su nangoo toog ak moom rek noona dañ ko ciy bàyyi kenn du ko fase mu ne nag bu jigéen ji waxoon ne nangu damaa toog rek ak moom bañ joteeg man dara bañ ko ne kon baax na gannaaw ba la ne mën naa jékki-jékki ne loolee ma nangu woon nangootuma ko na nangoo joteeg man rek mbaa ñu fase ma ñu ne loolu sañ na ko su góor gën a nguuti deltu gannaaw rek ñu daal di koy fase kenn du sakkaat beneen delle ñeenti weer mbaa ñaar di ko may jëkkër ja waaye nag nee nañu kat bu fekkee ne jigéen ja dane woon nangu damaa toog ak moom at bu jël ko ba xam tudd daal ab dat boo xam ne koo ràññeel kon li fekk dat bay jeex moom du sañu deltu gannaaw ne laa nangu woon nangootuma ko moom mi waatoon ne du jotee soxnaam buñ àggee ci nanguwu të deltu gannaaw ba ñu fase soxna si tam dañ ne woon pase moom paseem payli la li fekk idda ji jeex bu ko neexee fayli ko mu ne waaye nag balaa fayli gaa wér mu def benn ci yi nga waxoon ne mooy fekk ci jiñ la waaye su waxoon rek ci làmmiñam ne deltu naa gannaaw mbaa fayli naa ko te deful dara dara li nga waxoon ne mooy fecc ngiin la ba far idda ji jeex kon fayli ga wees na wéy na mënta fayleeti